Yes, yéen mbokki jullit yi seen mbokkum taalibe mu ñuy wax Mamadou Diagne moom Serigne Saliou dëkk fii ci Bambilor ci quartier bu ñuy wax Camp de Sonnes maa yëkkatee kàddu di ko jëmale ci wàllu cosaanul jàkk ji ci Camp de Sonnes di nga xëy dañoo yenn tey di ko dal jàkk ji nag cosaan li li ci li ci fi mu tàmbalee ci li ma ci xam ndax man 77 bi ma fi ñëw ku ñuy wax sëñ Mor Khoule moo fi nekkoon ak sëriñ euh, Mbacke xule sëñ moor mbay ak sëñ Saliou Guèye ak ku ñuy wax ma Massamba Badiane ak sëñ Bàcci Thiaw ak ak ku ñuy wax Diop euh, Diallo Kando Senes ak Baye Aliou Diop ak yeneen mag ñi nga xamante ne ñoo fi nekkoon jàkka ji nag def naa ci tàmbali gi sëñ Mor Khoule moo ko moo demoon ci góor gi ba seeni ndooy mu dax ko mu jox ko pàkk bi booba mag ñi fi nekk bëri ñu bëree guñu woon teewaay bi fii ñi fi nekk ci teewaay bi fii ne ci quartier bi sa fekk woon ko ku ñuy wax Saliou Guèye rek te mu toog nii suñu wet moo bokkoon ci ñi nga bokkoon na ci kanam lañ fi bi ñu samp jàkk ji mi ngi fi ci déer bu néew lañ fi ñëw 77 yaa def ñu ànd ak mag ñi ku ñu wax Mor Mbaye nekk suñu délégué de quartier Mbacke Xule nekk suñu kilifa waaye Seyna naa Diop mi jiite woon daayira bi Mbacke Xule nekk fi ñu bokk fi mu topp ci mu nekk bokk nekk fi ci quartier ci ci loolu ci la ñu tàmbalee fii ci jàkka ji fas ko yéenee tabax keroog bi ñu koy tàmbali tabax bi suñu wax ku ñu wax imam Maguette moo ñëwoon moo teg xeer yi moo ñu natal jàkka ji moo teg xeer wi ci cosaan ni daal li ma ci ci gàttal rek ndax wax ji bëgg dee daanaka taxul mu am solo ci am solo daal mooy jàkka ji Xule moo ko fi Eh, sampoon ànd koog mag yi ñu fi nekk ñi ma limoon al bi ñi tam bi ñuy teg xeer wi sëñ eh, Maguette Diène imam moo tegoon xeer wi moo ko natt bi ci ci jamono booba xale yi nekk ci koñ bi Amar Boussa Góor Xule mii tey nekk seen délégué de quartier ñoo fi nekk yor benn association ñoo tàmbali li ñu am di ko commencé def ci jàkka ñu commencé fii nag saa bu ñu xëyee takk rajo di ci kott kotti ba tey jii gis ngeen ni ku ñu wax Ablaye Ndoom ñëw fi ànd ak Gora Khoule ñu di ñu ci liggéey bi cosaan yi daal mooy Mor Khoule moo ko tàmbali woon ak mag ñi mu fi fekk ñi ko fi fekkoon ñun ñi ñu nekk doon seen i doom ak ak seen rak ànd na ñoom nekk doon xale ba tey ji yàlla def na ñoom ñu bari làq na ñun ñu des fi ak magi taaw yi fi des kon ci gàttal ñi nga xam ñooy war yor yor war liggéey beeg yooyu dinañu ko dinañu ci jël ay kaddu ku ñu wax imam Mbacke Seck imam Mouride mi ngi ni sunu ki fàtte naa sax ku ñu wax imam Boussa moo fi nekkoon léegi imam ñi fi nekkoon imam ki fi njëkk a dem doon imam Aliou Diop la bokk ko na mu ba mu fi jógee seen Cheikh Boussa des fi nekk ci mu jóge fi ku ñuy wax am ni Moustapha Niass te ji ku ñuy wax imam Abdoulaye Diouf mooy imam bi si ñu toll nii mooy jiit jàkka ji kon maa ngi yamale foofu kaddu yi rek di bàyyi ñu ci def ñu yeggale li ci des. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu di profité ci occasion bi di présenté wu Abdoulaye Ndom laa tudd dëkk quartier camp de jeunesse ma fas yéene waxtaan ak yéen ci lu jëm ci liggéeyu mosquée bi mu di euh, jumaawu quartier camp de jeunesse alors wax ji nag ñu ngi koy tënk si ñaari mbir rek. benn bi moo di sant yàlla ñaareel bi sukkandiku si gërëm gërëm gërëmaande ah liggéeyu jàkka ji ñu ngi ko tàmbali boobaak léegi war na mat ñetti at ah ñu ngi tàmbalee ci benn conférence dañoo toog rek am yéene ah nee nañu jéem a organiser benn conférence pour lañ ci jot a euh, jëlee ñu fas cee taxawal juma ji di juma kand de jeunesse biñ ko defee ñu oo sëñ koso bu tëngéej mu defal ñu fi benn conférence conférence ba alhamdulilah rabbil alamina waa quartier bi jàpp nañ si waa dëkk bi jàpp nañ si waa commune bi yëpp jàpp nañ si ci biir jàpp boobu nag daañ ci gërëm Malick Ba jàppale nañu bu baax a baax a baax ci conférence boobu loolu tax ñu mën a tàmbali démarrage yu liggéey bi bi ñu ko démarré ba léegi wax dëgg yàlla képp kuy jeune bu nekk ci dëkk bi ah wax dëgg yàlla dugal nga ci sa loxo ñuy sant bu baax ñi ci dugal seen loxo yëpp gis nañ ñoo ngi sant bu baax sant bi ah ñu ngi koy jëmale tàmbalee ci waa quartier bi quartier camp de jeunesse ñu doon ñoo xam ne ni ñu ci dogu lañ wax dëgg yàlla tàmbale ci mag ñi fi des eh, ak xale yi surtout xale yi puisque bu doon mag ñi rek du sotti waaye lu jëm ci liggéey bi wax dëgg yàlla xale quartier bi bu ñu ootee liggéey ñëppay teew ba gis ngeen liggéey bi fii mu toll nii ñaari étape lañ ko defoon dañu xaajoon jàkka ji ci digg bi puisque jàkka ji eh, largeur bi 10 mètres la mais longeur bi 15 mètres ñu xaaj ko ci digg bi nag def première étape bi moo di ñu xa euh, ñu tàmbali ko jéem a dali loolu bu ko defee jàkka ji fi mu nekk ñu toxalaat ko andi ko ci ginnaaw soog a mun a entamer beneen étape bi alhamdulilah rabbil alamina tey jii lañ doon dale première étape bi bu ñu paree loolu yëpp bu neexee yàlla daañu entamer deuxième étape waaye daal ci ci tënk daal jàkka ji jàkkay quartier camp de jeunesse yëpp la ku nekk fa sa doole toll def nga ko ci surtout xale yi xale yi daal wax dëgg yàlla ah, gàcce ngaalaama waaye jàmbaar lañu jàmbaar lañu image yi ngeen gis wane na ne ah, c'est une jeunesse déterminée c'est une jeunesse déterminée ah ma di leen sant nag man biñ ma tegee ci seen kanam ne naa leen jàppale pour liggéey bi ñu doxal ko ñun ñëpp alhamdulilah rabbil alamin boobaak léegi ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ku ci nekk la nga waroon a def def nga ko sant yàlla sant yàlla ñi profité ci occasion bi nag di appeler puisque mbir mi doonul ne dañoo pare liggéey bi fii mu toll nii mais liggéey bi ci xaaj la toll wala buñ ne sax xaaj toll tollooguñ sax ci xaaj bu ñu paree ci lii bu neexee yàlla dañuy continuer waat daañu fi defaat lu toll nii lii nga xam ne ne def nañ ko fi déjà kon boog fu ci waay mën a nekk mu dëkk ci dëkk bi dëkk ci réew mi foo mën di dëkk nga ñëw ñu ngi lay oo nga ñëw dugal sa loxo ci lii dugal ci loxo jàppale ñu ba jàkka ji mën a egg ak jàmm alhamdulilah rabbil alamin maa ngi leen di sant di sant ñëpp. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyoo ñun euh, Gora Khoule euh, lañ tudd nekk délégué de quartier Kanu jeunesse ñuy wax tuuti si historique gu quartier bi. Euh, maanaam fi quartier bi tàmbale ak ki njëkk a nekk euh, euh, délégué de quartier bi loolu lañu ñu war a tàmbali ñu ngi nuyoo bu baax a baax di ziar ñëpp di ziar suñu waa presse bi nga xamante ni ñoom ñoo teew fii Bambilor TV Zone 7 TV ak Bambilor Actu ñu ngi leen di nuyu di leen ziar. quartier Kane jeunesse lañ nekk tey ji muy quartier boo xamante ne am na histoire am na histoire si Bambilor. parce que buñ tuddé quartier kàndu jeunesse rek war nañu nañoo euh jeunesse sou bambeur bu njëkk ba manam quartier kàndu jeunesse mu ko déggé moy quartier bi moy école yi nga xamanteni fi mo waron ñëkkon njëkkoon école yi nga xamanteni mom lañ doon tubaab bi doon testé bambeur moy kër yi nga xamanteni ne ay kër yu yàgg lañ légui sax dañ ko modifier ba kër yakarna mo bu ma ñaari kër fi dese bâtiment yooyu bu légui yenen kër yépp modifier nañ seen kër ki nga xamanteni ni bi quartier bi ñëwé nga xamanteni ni ñëw nañ ci quartier bi ki ñëk nekk quartier bi suñu mam la won ñu ko doon wax euh, mam Mor euh yor na quartier bi ba wacc liggéey bi mu waccé liggéey aussi ñu jëlat quartier bi jox ko ku ñuy wax Baye gorofal euh Baye gorofal euh, ki ko xam ñi ko xamul moy moy papu ñu mamour Fall MC ak euh, ñom Baba Fall moy nekkon sen papa. moom nag da ko yor boo xaw a ba tële xam ni mëntul yor quartier bi ñu jël ko jël ko jox ko ku ñuy wax Baye Mor Mbay moom mu yor quartier bi moom tamit ba yàlla jël ko si lañ wëññeeku jël quartier bi jox ko sama waajur ñu koy wax euh, baay Mbacke Xulle moom yor na quartier bi ba mu fi jógee tamit man mi nga xamante ni maay doomam taawam la waa quartier bi wóolu ni ma comme yëf baa bi nekkee dem na ba tële yaa fi nekkoon. quartier bi mu ngi sa loxo euh, mooy yor ko ànd ànd waa quartier bi yëpp ñëpp tamit euh, ku nekk duggoo sa loxo si biir quartier bi du man rek maa doxal mais waa quartier bi yëpp laay doxal góor jigéen mag ndaw ñëpp ñu ngi xool lu développé quartier bi quartier bi nag am na extension extension bi yaakaar naa bu ma juumalee euh, mooy fi nga xamante ni moom lañu ñu mujjee dagg si quartier bi mooy euh, loolu lotissement Mamor buse bi ba CM bi loolu yëpp si extension quartier bi ak fi ñuy wax tool Wade aussi si extension quartier bi la suñu juumalee ak euh, quartier bu ñuy cité tool bu ñuy déggaat suñu ginnaaw moo suuf si quartier bi juste mooy tool Alaaji Sall Alaaji Sall bi si extension quartier bi la mu ngi si diggante euh, Medina mu ngi si diggante Daaru Salaam ak Kër Kaw ak Njaasaan fofu moy bo boy laaj kan kan jeunes fofu la kan jeunes sitio woo. ci si bëgg doole wa rek ay remerciement jëmele ko si euh, bon bon volonté yi nga xamanteni ni japp ci si liggéeyu jakk ji ku mel ni malik ba Ba euh, ñu koy nuyu diko ñaanal suñu borom bay ko ay xéewal ak fanu gudd ak euh ku mel ni jongu ñu koy gërëm diko ñaanal. Euh, ak ku tol ku nek ko xamante pap ñang Niang la tudd muy ben patron bu Baye galo ñu koy nuyu diko ziar suñu grand bi nga xamante drama euh, Birama Gueye aussi jaar na fi tay daf na fi lu reey rëy ndax wax ci wax wax wax ñu ko doon liggey mais ñew na fi taxaw na fi vraiment barkelu na ci barkelu am solo ak xalé nga xamante ne ñoo ne ci quartier bi xalé ñu ngi leen di gërëm bu baaxa baax ndax liggey bi tay bu ñu kul nañ jàkka te 2 heures jotul kon xam nga ne xale yee ko kule sama classe dañoo taxawoon di superviser rek kon du ñu def lu dul di leen ñaanal soxna yi nga xamante ne ñoo doon togg añ yi ak mag yi nga xamante ne ñoo toogoon di ñaan ñëpp ñu ngi leen di ñaanal suñu borom may leen fanu gudd ak wér gi yaram may dafa dafa leen ay xewal yu bare bare mu saawaan baawaan ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp comme ni ma ko waxoon ñu ngi nuyu presse bi nga xamante ne moo ne su zone bi Euh, Bambilor TV euh, Zone 7 TV euh, Bambilor Actu ak ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar leen wax jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf sa kaw sa kanam asalaamaaleykum wa rahmatullah